ba nit taxaw naan ay ay sàcc lañu. ba nit taxaw naan ay détourneur de deniers publics lañu. ma man doon sàcc moo ma gënal doon fenkat. kuy fenkat bi ma ne wax wax. bu kannaso ka koy déggee nite dama ne man doon sàcc moo ma gënal doon fenkat ah, waxuma la nag fenkat boo xam ne fenkat boo xam ne justice ci boppam ñoom ñoo ne yow fenkat nga. chef ko mën kooku Ousmane la ah, ah, ko. Eh, lettre bi sànni naa ko. buntu Masalik ginnaaw bi ñu ko laajee ci wàllum fisc yu ni mel daal dama lay bàyyi nga indi sa jàngat ci kàddu yi Bougane Gueye Dany yi. kàddu yi président Bougane. Hmm. dégg naa kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ak ñi nga xamante ni polémique yi nga xamante ni jur na ko si. Euh, côté fenkat euh, sàcc nangam nangam mais si xiste yi nga xamante ni dama koy dégg si gaa yi damay dégg ñu ni euh, dafa as am ku fekk yonente bi mu tëdd daal su def samp loxoom bi def nii mu ne ko ndax ab jullit dana njaalo mu ne ko bu sàggan mu ne ko ndax ab jullit dana sàcc mu ne ko bu sàggan ndax ab jullit dana nangam mu ne ko bu sàggan mu ne ko ndax ab jullit dina fen fekk na daa soonoon mu daal di dindi soonu bi jóg toog ni ab jullit du fen mm-hmm. xaj na nag foofu looloo tax nit ñi di ko di ko wax te looloot xaj na di tax euh, si jàngat rek mm-hmm. mu dindi fen bu dindee fen rek yooyu yëpp da nga koy bàyyi bu dindee fen bi waaw bu fen bi supprimé wooyu yooyu yëpp doo ko def doo sàcc doo njaaloo doo nangam doo nangam ndax yooyu yëpp fen day nekk ci biir mm-hmm. kon looloot xista la boo xamante ni mi ngi kii gaa yëpp ñu ngi koy jàngale mais président Bougane kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ku demee ni Ousmane Sonko premier ministre dafa woote nit ñëpp ñëw Sénégal gépp di ko seetaan mu ni sàcc boo xamante ni dafa jàpp mu ni kii leen ñu sàccaat ñu jàpp ba mu ñett yoon ñu sàcc ko sàcc yee bi mu waxee tudd tur mais dafa am ñoo xam ne ñoo ko jël moomale ko ñoom Bougane bi mu ko moomalee ñoom Bougane Bougane it daal di am occasion julli si ñëw nit ñeet kar ko si jullikaay bi moom it daal di koy laaj moom it mu daal di wax ay waxam daal nit bi maa bind leetar moom it joxe. Mhm. moom it ba tey waxut ak Ousmane Sonko mais nit ñi Ousmane Sonko lañ ko moomale. Mhm. bi mu amee bi mu waxee waxa jooju nga xamante ni gis na ko en tant que opposant wala en ku nekk si réew mi man ànd naa ci mu yëkkati ay kàddu tontu. Mhm. ànd naa ci mu kont na mu ko yëgee. ak na mu ko bëggee. ndax réew mi foofu la toll réew mi mënuñu koo am muy réewum Sénégal muy dox am ñoo xam ne ñi ngi wax seen i wax wala ñi ngi def seen i def ñu ne bu si kenn tontu wala bu si kenn wax. te it kenn waru laa jàngal ni nga siy tontoo kenn ku nekk nag noo tollu rek noonu ngay waxee. Mm-hmm. Ousmane Sonko bi mu fi nekkee dafa dëgmal président Macky Sall. Mm-hmm. jàmmaarloog moom xeex ak moom xeex ak moom jàmmaarloog moom lu mu ko may mu jël te mayu ko woon dara ba egsi fi mu egsi. Mm-hmm. kon nag tey jii bu fekkee ne buggaan ñëw na Ousmane Sonko yëkkati ay kàddu mu jàpp ni moom lay waxal wala mu jàpp ni bokk na ci ñi muy waxal. mu yëkkatiwaat ay kàddu jëmal jëmale ko ko. donte tuddul turam mais jàpp nañ ni it Ousmane Sonko lay waxal mais ñi nga xamante ni ay analyser kat lañ. Hmm. ñii analyser mais buñ ñëwee nañ analyser Ousmane Sonko lan moo tax mu yëkkati kàddu yi di ko jëmale ñoom Bougane analyser ko wala bi Ousmane Sonko yëkkati kàddu yi jëmale ko ñii ba jiñ leen ay sàcc lañ mais kenn waxu ci dara. ñëpp dañoo taxaw ni sàcc yi nañ dem fay sàcc yi nangam nangam léegi nag kii tontu ñi daan ni lan moo tax muy tontu. nii mais bu dee yow yaa ngi woon ci kii ba Ousmane Sonko maanaam néewu leen ay sàcc ngeen de nga ni mu waxee. lu mu wax sàcc nañ kay la wax sax dañu ko dañu ñoom sàcc nañ ba pare. waaw déedéet waxewu ko noonu de. waxewu ko noonu. Ah. ba baax na gaa yaa ngi seetaan waaw man ci li ma dégg. Hmm. maanaam dafa wax ni. masalan mu mel ni koo xam ne dafa sàcc. exemple da ko indi ba ci salaire yi nga xam dañ koy fay seen employé ñu leen ciy mu ne li ñu leen di dagg. loolu la ñu waroon a fay mais li ñu leen di dagg itamit mujj ñu koo joxe xam nga loolu kon mën na koo tudde ak càcc maanaam ma dagg la Assane nii la kat maa ngi dagg sa salaire juróomi téeméer. pour dem fay ju ko état bi ma daggal ko ba pare juróomi at fukki at la may dagg joxuma ko état bi léegi état bi ñëwaat baalaat ma ko ma defaat ko état bi baalaat ma ko léegi loolu la ni nga jàpp nit mu sàcc nga jàppaat ko mu sàcc nga jàppaat ko mu sàcc na xam nga masalan man ci dégg-dégg boobu li mu wax nag ban dégg-dégg mooy bugaan maanaam li mu wax laaju ñu ko hmm? maanaam bugaan Ousmane Sonko li mu wax kenn laaju ko ko déedéet man xa ci li ma déggee laax dama ne bugaan moom dafa ñëw daal ni doon fenkat doonub sàcc dafa wax ba egsi loola waaw sàcc moo ma gënal doonu fenkat bugaan dégguma ñu ne ko ab sàcc nga bu ah, fekkee wax ji am na lum ci moom xam nga lu ma dégg ñu wax ko ko mm. fayal imp non non non man moom sàcc déggoon mosuma dégg ñu ne ko ab sàcc nga non ay sàcc mm. nga sàcc ñu jàppal nga sàccaat ñu ne baal leen ma wala mënumaa fay ñaar yooyu benn la ci wax waaw Ousmane Sonko ko wax ñëpp di ko dégg si penc mi la ko waxee mais moom pourtant wax ji yëpp fayal imp lañ ko wax non non na fay fayal imp yooyu yëpp dama ne garaawul mais lan moo tax laa wax ñu nekk fi Sénégal nit ñi di war a wax seen xalaat ñun kenn du fi waxee xalaatam nit kenn. wax loolu kenn aayewu ko de. non non non gis nga bugaan wax seen xalaat yow yaa ngi wax sa xalaat yow la aaye sa xalaat non man kenn du ma aaye wax sa ah, xalaat kon ba man lépp lu ñëw dinaa si wax sama xalaat la ma sa xalaat léegi kon lu tax nga sa xalaat mais gisal bugaan bi mu waxee wax sa xalaat da gis ñaata nit a def ay sorti waaw dal ci kaw mais ak kenn aayewu ko kenn néewu ah? bul wax de non loolu kay mooy bul wax rek déedéet mais daal en tout li mu wax am na si droit opposant la na opposant génn wala ñu xaarandi ba sa kanam bu desee ñaari at nañ opposant yëpp génn jàmmaarloog ñi fi nekk leeral leen li ngeen fi liggéey lii baaxut lii baaxut lii baaxut lii baaxut lii baaxut lii mën ngeen ko yokk lii mën ngeen ko yokk lii mën ngeen ko yokk nañ bàyyi daal ba fii ak ñaari at nañ ñëpp génn jàmmaarloog ñi fi nekk d'accord joxe hélas macha allah